jërë ngeen jëf euh, jaajëf euh, Kader Lo merci beaucoup ci wàllu technique bi Yacine Pouy moo toog ci digital bi euh, RFM l'officiel suñu page Facebook suñu site www.rfm.sn di kontaan auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ci seen journal de faits divers xalaas ma ànd ci ak tey Mamadou Ndoye Bane baan tey dafa mel ni man ak yow rek nekk ci kër gi de. waaw mais mën na lool ma loolu nag loolu nag lu ma yéem na. Hmm, de moom maa ngi loolu nag yéem na ma yéem na ma lool lool lool lool jaaxal na ma lool ànd ak ànd sa gars yi maa ngi lay nuyu xam nga il faut que ma leen di woo euh, di xool fu nekk ak ci lu ñu nekk. ah maa ngi lay nuyu. maa ngi sant man de maa ngi nii toujours présent gars dañ dañu maa yem rek waaye man toujours présent abaa maa ngi lay ziar. lay delloo ziar di la ñaanal jàmm di ànd ak sa kaw grand frère Ndiaye. Ndiaye moom laay xool de euh, maa ngi koy woo waaye daa wuyuwul. Ah. daa wuyuwul. Ndiaye de dafa dafa doy waar ah na yeewu dañ ci jàmm yàlla nañu yàlla def ñu yendu ci jàmm nja abaa yàlla nañu euh, euh, euh, yàlla nañ ko fanaane yàlla muy borom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla nañu yàlla may jàmm yàlla na yokk jàmm ju baax a baax sénégalais yi ne ci réew mi ak ñii nekkul ci réew mi yàlla na leen yàlla may jàmm gambien yeeg waa Mauritanie ñi ne bitim bitim réew yépp yàlla na leen yàlla may ay xewal may leen jàmm jàmm ci la lépp xaj. yàlla na jàmm yàgg. waaw yàmmeen waay amin amin na ñëpp ni amin ayca lu jëm ci wàllu euh, ah, partenaire yeeg sponsor dañ leen sant rek ah. di leen gërëm euh, di wax ni ñoo ko lépp xam naa suba njaay bu ñëwee toog ndax moom maîtriser yëf yi faaw mu commencé maa jox yëf yi nag <laughs> xam ne bu ab santé waaw euh, ma mën di ko yëngal ah. ma ni tamit ba mu ba mu yëngatu mhm. donc nañu dem ci xalaas bi njëkk baan eh, wala abaa kii dañoo sàcc taxi am ayca taxi waaw marque waaw taxi taxi jaune noir la DK 87 03 87 03 X tey jii lañ ko sàcc ci cinq heures du matin fële ca boori foyer Grand Yoff ba waaw mi ngi nii. waaw mi ngi nii de sàcc nañ ko les papiers euh, d'une auto voiture de matricule DK 09 12Z. daal euh, ouvrir le taxi volé et xaw ma lan ñu ko bindee nii mais de toute façon taxi bi nga xam ne moom lañ sàcc. mi ngi nekk DK 87 03 X woro ma ngi koy wër bi ci guddi ci ay 5 heures du matin lañ ko sàcc. fan. Euh, Grand Yoff. Grand mais Aba. Mhm. xam nga man moom képp ku ma gis muy def lu baax dama koy wax. dëgg am na koo xam ne maa ngi koy gis temps yi yëpp te képp koy sénégalais war ngaa jàng ci moom Aba. kan la ñun ñii muy man ñii muy yow mi muy ñiy déglu. professeur la Ndiaye dama koy dégg ñu koy woo fii ci ci ci émission bi. Mhm. dinaay dégg El Hadj Assane wax ak moom. mais professeur boobu man li ma seetaan naa ko démb TFM te temps yii yëpp daaw ba ren maa ngi koy gis muy def ay action yoo xam ne ci ci ci ci Sénégal yëpp la koy def. Mhm. kooku nit ñi nañ ko suivre tey roy ci moom nit day roy lu baax. moom ci lu nekk. ci social bi. Hmm. gis naa ko muy maye ay kaye ci école bi école yi gis naa ko muy may ay matériel ci santé bi gis naa ko muy def ay don de sang maanaam maanaam maanaam maanaam dara boo leen gaa yi naan boo réewul daaraa ki wax. waaw maa ngi koy woo suñu jumaa ji. waaw jumaa ji. xam nga waaw Ouest Foire dañoo jël jumaa ji eh, daal ma koy dénk pour njëggal xam naa suba vendredi ci weekend bi laay commencé def collecte yi lu jëm ci wàllu jumaa rek climatiseur yeeg moquette yeeg baan peinture beeg lépp rek. lu hmm. jëm ci wàllu jumaa rek. lu waay indi rek. en tout cas daal yóbbu suñu jumaa ji. maa ngi ci woo professeur Ndiaye. en tout cas gis nga gis nga ñii. maa ngi ko ciy woo professeur Ndiaye. Hmm. poli politiciens yi. Hmm. nañu wàññi tuuti plateau yi télé yeeg rajo yi journaliste yi danañ ñoom mere koor tey dem si le terrain bi tey dimbali askan wi. xool li ñu xam ne moom la ñu. politiciens yi ne ci mmh. nguur gi. très important ak ñi bëgg ñu jox leen nguur gi. Mmh. soo bëggee ñu jox la nguur da ngay wàññi ay wax tey jëf ndax yàlla du fay ay wax yàlla du fay ay wax bàyyi jëf. Mmh. ne nit ñi di jëf di dimbali askan wi. très ñi ne ci nguur gi ak ñi ne ñi bëgg a jël nguur gi. Mhm. waaw surtout nag baan ñi ne ci nguur gi. waaw surtout ñi ne ci nguur gi. am lan wax gi ba noppi. ak ñi ñi fal ba pare. Mhm, mhm. waaye tamit cin su naree neex su baxee xeeñ. mais nañ wax ci ñi toog ba pare rek. non dégg mu la dama ne la cin su naree neex su baxee xeeñ. jox nañ la dimbalil sa askan. dëgg la ñin jox. président ak ay ministre am ak ay maire am nañu dimbali askan wi waaye yow mi tamit mi bëgg ñu jox la defal ay gestes yoo xam ne dina dalal xel ñi nit ñi que ni yow mii su la joxee kat di nga dimbali dimbali xaw ma professeur Darou Ndiaye moom xaw ma day politique xaw ma waaye li muy def man neex na ma. am na solo. waaw nañ dem ci xalaas bi waaw am na solo. leer na ñëpp dégg nañ ko. kii jëkkëram a réer. waxul réer de sama jëkkër moo dem. waaw dafa réer dem dem la def tantay kenn la ci kër gi. bi ma woowee ni ma sama jëkkër dafa réer man ko ñaataat mun ma depuis xaw ma 2006 man ko tey nga ma ko tey nga ko tey nu ma koo jox rek rek waa ji daanu ci suuf. non waaw jë ta ta ta tantaam euh, nu mu doon ki ma jox xalaas bi euh, ci kër gi lay liggéeyee tantaam la jëkkëram réer. depuis 2016. waaw moom maanaam papaam bu ndaw a dem. déglul. waa sama jëkkër bu mu demee 2006 août 2006 la dem boobu maa ngi village dëkk ba Thiadiaye moom mu nekkoon fii Dakar dama jékki-jékki bi ñuy waaj xaral xale yi xale yi dañu waroon a am deux ans ci septembre bi le 5 septembre léegi ma laajte ñu ne ma nekk fi boobu information daal laa am ci moom ci magam kër magam daal la jóge kër magam bu góor fii Sacré Cœur 3 foofu la magam dëkk booy dem boulangerie jaune di magam di voyager ci ginnaawam la dem année boobu magam bi daa demoon Canada avant muy ñibbisi moom mu dem ba magam bi bu mu ñibbisee noonu ma laaj ko mu ne ma ma ñëw ba dakaar laaj ko ko mu ne ma ah xamul ci moom dara moom ci ginnaawam la dem nii daal laa déggee demam bi depuis 2006 nag ba tey dégguma ci moom dara leneen déggatuma ba benn jour en 2016 en 2016 ñu dee mu am ku gisoon doomu magam ku mu laaj ko ko mu ne ko yow daa am ci ma gis fële Koupantoum mu niroog yow. en 2012 2012 am na télé numéro téléphone ku ma woo ci téléphone. numéro boobu numéro ma def ma wut indicatif bi indicatif bi nekk gine baatam la ma joxoon parce que daf ma laaj kookan la ma ne ko man la ifi man ifi génie laa tudd. mu ne kookan la ifi ma ne ko waaw mu coupé. c'était en 2012 octobre 2012. mu ne ko kookan la kooku nu ma tudd mu ne ko kooku Victor Diène Faye la tudd mu ne ah kooku kay sama tonton la moom la ñuy wër ban côté nga ko gis mu wax mu wax ko Koumpentoum Kouthiaba foofu laa ko gisee léegi magam bi jóg ak euh, jarbaatam ñu dem seet ko dem nañ ba Koumpentoum wër ko foofu nee na gisuñu ko tey nag déggatuma ci moom dara dara ba tey ba benn 2015 après midi yooyu mu ñu woowaat ma mu ne ma ndax yow yaa ma woo ma ne ko déet woowu ma la góor la nag baatu góor la may jox ma ne ko ah wowoo ma de woowu ma la de mu ne ma waaw est-ce que du xale yi ñoo ma bippé ma ne ko déedéet xale yi bippé wuñ la après mu ne ma ah man de numéro bi dafa foogoon yow la mu ne ma yow foo dëkk sax ma ne ko man caajaay laa dëkk après man ma laaj ko yow noo tudd mu ne ma ma Madial ma jal jóob la ma wax tur boobu la ma wax mais ba tey baatam la may jox aussi mais olof la wax la làkk keroog waxul séeréer en 2012 séeréer la ma làkk mais en 2015 mu wax ma olof loolu daal laa mës a dégg mais baatam daal la ma doon jox may naan ndax moom la wala du moom mais à de boobu ba tey nag déggatuma ci moom dara xamatuma ci moom dara te waxaat naa mbokkam yi ndax déggu leen ko fenn ba tey ñu ne ma ba tey dégguñu ci moom dara moom ñaari doom la am ak man ay feex moom laa taawloo ak moom ñaari góor moom Victor Gen Fay lu tudd mais genn Fay moo nekk ci kayitam yi mais Victor Guen fay la doon moom lañ ko doon wooye parce que moom mooy turu chrétien am Victor man Iphigénie Faye laa tudd doomam ñaari feexam yi bu ñuy waaj am deux ans ci la dem ma doon wax nag pour de mënoon nga ma ko wutal ci biir fi ngeen di wute ah ma ñu xool ba xam en 2015 bi ma laajtee olof noonu di ma laaj ndax yow yaa ma woo ma ne ko déedéet woowuma la ndax yoruma sa numéro mu ne ma est que du xale yi ñoo ma bippé ma ne ko déedéet xale yi bippé wuñ la de ndax yoruñu sa numéro yow la kan mu ne ma ma jal jóg ma ne ko yow foo nekk mu ne ma man Abidjan laa nekk nii di wax ak yow mu ne ma yow foo nekk ma ne ko man caajaay laa mu ne ma de caajaay xam na am naa xam naa foofu bu baax kon su ma ñëwee caajaay dinaa la seet si ma ne ko waaw kon ba baax na yow danga maa xam. mu ne ma déedéet xamuma la mais su ma ñëwee foofu dinaa la seet si ma ne ko ah kon baax na ba mu bëggoo ma wax yow la kan ma jal jóob man xawuma ko mu ne ma waaw xamoo ma mais comme caajaay nga nekk su ma ñëwee foofu dinaa la woo ma ne ko waaw kon ba tey man daal boobu daal laa gëj a baat ci ki ma laaj koo xam ne daal man may xalaat comme moom la war a doon daal ba waaw jëkkër ju réer moom metti na mm-hmm. jëkkër ju réer metti na kookee nag ñi nga xam ne moom lay laajte képp ku ko xàmmee wala nga dégg turu mel noonu mën nga ñoo contacter ndaxte ndaw si am na mbokk ci kër gi am na solo waaw góor parce que am na koo fii la fi tegaloon koo xam ni jëkkëram dafa réeroon sa fait plus de vingt ans ba ma naan ko ba mu amaat fi jëkkër mm-hmm. ma naan ko waaw sa jëkkër am nga jëkkër su sa jëkkër feeñee nooy jëkkër ja feeñ na ban problème boobu indi ñëwaatoo ko. ah mais nag da ndaw si ñëwaatul pour wax mais woo na ma téléphone ba ni ma jëkkër ji feeñ ne. man moom nu mu dundee loolu tas balaa jëkkër jee feeñ. deux mois avant jëkkër jee feeñ am na am na problème ak jëkkër jee jëkkër ju bees ji. te xalaatul woon ni kii dina feeñ. waaw non non non. Hmm. voilà xam nga sëy naag jëkkër jee ba am ak moom ay doom yu mag yu nekk université. Hmm. ñu may ko keneen. léegi nag deux mois avant jëkkër jii di feeñ ñoom ñaar am nañu ay problème ba mu divorcé kee. deux mois après la jëkkër ji feeñ. léegi kii feeñ après Guinée mu ñëw. après takkaat ko. baan lii il faut nga woo oustaz de il faut nga consulter oustaz ci lii. ah ah il faut oustaz wax ci lii parce que <laughs> non non non non. feeñ na de. nañ tëj loolu nañ tëj loolu parce que feeñ na de feeñ na de. foog Mamadou Mohamed Ndiaye ñëw toog fii. feeñ na de. ñu woo oustaz Mor Thiam. Ah. wala waaw waaw wala wala wala oustaz sama waa ji. Ah. Euh, Ndiaga ah, mu wax ñu euh, lii ndax lii garaaw na de. réer 15 ans. feeñ ñu sëy si ginnaaw. waaw. avant ngay feeñ deux mois ñu tas. waaw nga feeñ ñëw takkaat. takk na ko de takkaat na ko de. mais baan loolu rek du coow lu ci réew mi baan euh, loolu moom xam naa dañ koy teg ne. Mhm. stand by ko comme ni ko anglais yi waxee stand baay ah. euh, bu ko defee baan euh, coowal suukar gi ci réew mi. suukar. suukar. dipa dipa dipa gi waaw waaw. te comprendre loolu yi dipa. loolu waaw waaw waaw. dipa këyit la. benn koo xam ne waa ministère bi yow wàllum commerce. mën la la koo jox ab commercant pour mu dugal benn man par exemple mu mel ni suukar. ñoo ko jox Sénégal ba ñëpp yi jaay suukar léegi fi ñu toll nii. déedéet <laughs> loolu ëpp na te dafa goo xam ne di paalu tudd ministère ba moo la ko mën a jox pour nga mën a dugal maanaam lu mel ni suukar pour nga mën a jaay suukar. Mhm. des fois je suukar manqué ak yooyu. Mhm. léegi loolu xam nga mën nañ ci di joxe peut-être cent par exemple. Mhm. mais de gars yi dañoo jékki-jékki gis départ yi mel ni tukku sa bën saañ ba réer ci réew mi. ñëpp yor départ ku mel ni abaa mi. tey ji su yoree di pa bay dugal suukar y'a problème hmm. aba ah animateur la fu mu jëlee kayit googu dafa am ñu war a jaay am ñu warut a jaay voilà léegi nag ñoo ñu njort ni am na ñu koy ñuy jaay di pa boobu di pa bi dafa war ab commerçant ko war a yor hmm. maanaam ministère moo ko war a jox commerçant gratuitement léegi nag suñ ko joxee commerçant bi peut-être te amul moom peut-être suukar mën na la koo jaay yow aba ah animateur yow nga dem mën a dugal sa suukar loolu la ñuy bañ léegi nag dañoo gis ni affaire bi dafa bari te loolu su su baree torop maanaam euh, li naan consommé local. suñu compagnie waaw compagnie compagnie sucrière par mm-hmm. exemple. Mm-hmm. moom mm-hmm. mi ngi mi ngi Richard Toll. moo yor wàllum suukar mi et tout. loolu su baree da koy yàqal. te y a des milliers et des milliers de sénégalais yuy liggéey foofa ca compagnie compagnie sucrière soo xoolee sax soo moytu bi ah plus est-ce que du dugal plus de mm-hmm. euh, ñaata ci lay fay par weer mm-hmm. euh, compagnie mm-hmm. sucrière ñaata sénégalais ñooy dund ci loolu léegi nag dépense ji su paree su baree te mu daan mën na daan dem ba daaneel entreprise boobu mais loolu mën nañ laa xaar ni euh, yaa ngi ci ñoo ngi ci waa parce que waa gendarmerie gendarmerie waa section de recherche ñi ngi ciy def ay enquête pour xool dépense yooyu ñan ñoo koy jaay loolu garaaw ak fu muy jógee loolu garaaw loolu président Macky Sall wax na ci conseil des ministres bële passé. que ni gendarme gars yi nañ ci ubbi enquête pour xool mbir mi fan la jóge parce que lu lu lu doy waar la. lu waar la tey jii loolu tey ji su yaatoo ba yaatu. mën na daaneel entreprise man la bu mel ni compagnie sucrière te compagnie sucrière dafa doon compagnie boo xam ne ah, def na fi plus de cinquante ans. soo xoolee li muy fay ci salaire état doo nga koy def. y' parce que du est-ce que du fay plus de deux milliards par mois ci salaire. Hmm? ah oui parce que ñii maanaam ñiy sukkandiku ci genre c'est consommé local dafa am solo lépp lu koy rëlmeel sénégal yi dañ ko war a xeex. nañu dem nañu dem. marché aslem gii nii. Hmm, hmm. xam nga ni lañuy ñuy fay patente yeeg ñoom seen. Covid bi tax na peut-être ñu baree mënul mënu liggéeyatuñu jaayatuñu wala euh, maanaam frontière yi su suuf yi dañ ko tëj. ñu tëj ko. te soo xoolee marché aslem étranger yi maliens yi. guinéens yi ivoiriens yi dañ fay ñëw di ñawlu ak di jënd ay tissus. Mm-hmm. ginnaaw ñooñu mënatuñu dugg dugg suuf moo tax mënatuñoo fay yenn taxes yeeg ñoom seen démb dañoo grève woon est-ce que tey duñu continuer di grève parce que ñu ngi doon rek ñu ngi ñu ngi ay gis naa fa ay télé yu fa dem yoo xam ñu ngi def ay reportage yi may gars yi ba ci kanam peut-être su korite gi see ba affaire yi doxaat tabaski jub siwaat ba affaire yi doxaat wala màggal yeeg gàmm defe naa ni gars yi dinañ mën a soppali suñu marché yi nag nañ ñu ko fonkal waaw ñun ñun surtout ñun asulem ñun fa lañ dëkk ay marché asulem ak Colobane ay Sandaga surtout marché Ocas Touba waaw nañu xool. waaw euh, naka la ñu mën a arrangé parce que foofu ay milliards lakk na fa. Oh, d' accord ay dañ leen képp ku leen mën a jàppale na leen ngeen leen ah, jàppale. mais tamit suñu marché yi de. voilà nañ góorgóorlu ci marché yi état yi. nañ ah. jël marché yi tabaxaat ko defaraat ko mais tamit ñiy liggéey ca marché ya nañ bàyyi biri collé courant. waaw loolu yëpp baan am. am na bàyyi xel ci marché yi rek. nañ bàyyi marché yi ñun amuñu lu ko. Ndiaye dëgg la Aba soo duggee ci marché yi yenn saa yi nga xool ci kaw nga gis bricolage courant yi sa yaram bi day daw da da da ngay da ngay sax tiit da ngay gis fiil fiil gu fiil gu jógee yëmbal ñu lonk ko ba pire. du yoon loolu moom du yoon. genre affaire yooyu nag mooy mooy taal marché yi. Ah, mi bu neexee. su marché yi ci la bokk de. dina dëgg la nen leen jàppale. dafa la xal leen ay marché yu an mucc ay yu ànd ak jamono waaye tamit ñu nit nañ bàyyi bricoler courant. am na solo am na solo. bricoler su courant dem ñibbi guddi court circuit am. marché ba tàkk. doo xam fan la. dëgg la ah loolu tamit. nañ ko bàyyi. entreprise bi. entreprise yi képp ku yore entreprise déglul xalaas te bàyyi xel lii déglul. waaw histoire bi may nettali nii li tax ma koy nettali. mooy dama si jublu bépp sénégalais boo xamante ni yaa ngi fi ci réew mi. yore sa entreprise di liggéey ah saay saay ba ñu jóge fële ci àll bi yàqal la ko. dafa bëri ay façon yoo xam day xew ci àdduna bi. te façon bu nekk lay dikkee te am na yoo xamante ne bu fekkee mosoo ko dégg mosoo ko xalaat mën na la nga ci nax euh, dafa am benn sénégalais bu nekk xamante ni yàgg na fa euh, la Omar wax sant bi pour l'instant dafa ñu contacter ñun suñu entreprise waxtaan ak ñun moom dafa yore entreprise bu mag bu ne états boo xamante ni dafa bëgg investir au Sénégal waaw investissement bi nag bokk na fi mu nekk nii euh, mu ngi quarante camions yoo xamante ni day defar ay nid de poule waaw nid de poule mooy tali yi nga xam ne dafa yàqu am ay pax mu war ko defar ci yooyu lay nekk di di di di di liggéey ak yeneen ah, bu ngeen waxtaanee daf lay wax ne. Eh, moom dafa bëgg a créer emploi yu bari au dina ci dem ba dina créer six cent emplois par an fii ci réew mi waxay avantage yu bari ne nag moom mënoon na ñëw créer ubbi fii entreprise bu bees waaye ñi muy liggéeyal dafay préférer mu nekk entreprise boo xamante ni am na vécu cest du entreprise bu bees am nay at ba pare it mu nekk HSA muy entreprise bokk na ci entreprise yëpp dayoo ci entreprise yi am fii ci réew mi ah, ñu waxtaanee loolu ñu proposé ko ubbi capital bi mu dugal xaalisam ñu mën a investir euh, liggéey yooyu muy war a mën a def ñu jaarale ko foofu ñu waxtaan waxtaan mais ci biir waxtaan bi mu nañ daal moom li ko amul li ko gënal mooy ñu jaay ko entreprise bi à cent pour cent ak suñu lépp bu ko defee moom mu mën a def li mu bëgg def réellement. comme entreprise la daxam dafa amee actionnaire yu bari actionnaire yi toog waxtaan conseil d' administration bi ñu joxe accord par rapport ak offre bi mu def pour jënd ko ñu d' accord ci prix bi ah li des moom mooy ñu defar procès verbal boo xamante ne conseil d' administration bi d' accord nañu pour ñu séddee ko action yëpp. Euh, ñu jël euh, procès verbal bi yóbbu ko impôt enregistré ko bi ñu paree ñu war a dem ci notaire bi bi ñu demee ci notaire bi pour mën fi def transaction yi bi calculer yi xam ne mooy frais yi xam ne moom la war a fay ah moom frais yaa ngi tuddoon autour de peut-être euh, moom war ko ci frais notaire yi bokkul li nga xam ne moom mooy. quatre cent millions yi mu waroon joxe pour ko entreprise bi li taxoon sax ñu d'accord lool mooy xam nga entreprise bi dafay am passif am ay actif passif yi moom mooy bor yeeg yi nga xam ne daal ay engagement yu entreprise bi jël war ko fay wala war ko def actif mooy yi mu am ci ay bien oto yeeg bien immobilier yooyu ci biir waxtaan moom d'accordoon na ne bépp actif bu entreprise am daf koy bàyyi ñun mais pacifique moom daf koy recréer donc bu proposé montant boobu dañu gis ne c'est intéressant ñu d'accord ah bi ñu demee ci notaire ba notaire bi def calcul ñu wax ko ñu yónnee ko facture bi mu war a fay non seulement montant bi mu wax waaye viré ko ci compte notaire bi mais viré waale frais mu daal di ne waxtaan mu ne daal léegi li mu gis mooy. pour mu mën a def virement yooyu il faut que déjà entreprise mu ngi coopéré ci turam ce qui veut dire que mun nañ ñun nañu fay fay ñu def mutation bi après moom muy soog mën def virement yi ah, xam nga rek koo xamante ni ça fait des années nga nekk dans les affaires am na wax yoo xamante ni bu xamee ci biir waxtaan amul cohérence loolu indi ñu commencé bukki ci ay mbiram tey ëllëg ñu ne ko loolu loolu duñ ko def moo mën a d'accord dina def tey ëllëg gannaaw ëllëg nangam nangam respectul finalement daal bi ñu dikkee ñu defaat beneen conseil bi réuniraat ñu fekk beneen conseil beneen PV annulé loolu mu jeex ñu ne ko daal annulé nañu vente bi amatul léegi jeex awaa dégg bi ñu annulé vente bi kii nii nii xam nga ne annulé leen vente bi mais dem nañu ba nga xam ne ndekete waa ji moom ca boppam Omar moomu avancé na ak ñoom te ñoom yëguñu ñu omor avancé na bay wax ak beneen entreprise ni leen entreprise bii ñii maa ko moom ñii dañoo xëy rek jékki-jékki rek ñu tëj seen compte yi. ban li graw na ah. mais aba affaire bu yéeme la boo xam ne mi ngi toj dëkk bi jamono ji te fii ak ngoon li nga dégg ay nit yu leen woo nii leen Omar mii wala ku mel ni Omar def na leen lu mel nii. suñu fi temps yi mayee ñu eggale ko suñu ko temps yi mayul gars yi suivre ko à suivre deme ñu xool Omar nan la mujjeek entreprise bi ak beneen entreprise boo xam ni Omar da leen a contacter ni leen entreprise bii waa ñu doon wax man maa ko moom jënd naa ko actionnaire laa ci. fii ak bu suba. waaw dañuy commencé waat bi ñu commencé woon dañu koy commencé waat yeggale ci ak bi ci topp te di nga dégg yeneen yu ñëwaat yoo xam ni mooy nekk xalaas bi suba. abaa lii du affaire bu ndaw affaire de milliard la. nañu dem allo Cukuru Rope Colobane ak Sandaga rue Change rue Fass de la République palais de la République résidence président de la République li nga xam mooy demeure historique située dans le quartier Dakar Plateau capitale ma de bala ma ko laa yàgg daay daay de la mu nekk la résidence occidentale AOF e Léopold Sédar Senghor Diatta 1964 Abdou Diouf 82 Abdoulaye depuis mu ñam fi ñamaat fu ñu xaaran ba xam kii woote ba ko président de la République ko kan la war doon fan lay woote salaamaaleykum allô Mimi Touré madame Mimi Touré. Mimi Touré mi lu waral sa woote ci biir palais ci waxtu wi toll. président la soxla woon. non président il est occupé. d'accord léegi dama lay yóbbante ci moom. waaw ca. bu ñëwee. waaw. nekk ma bi ma wax depuis bi ma jógee conseil économique et social. waaw. nekk mu ngi dégg samay samay message waa néew ma fi pour tonton ki nga xamante ni moom la fi teg. waaw parce que am na ñoo xam ne dañoo namoon nguur. danoo namoon nguur. dañoo namoon nguur. am na ñoo xam ne dañoo namoon toog ci bureau. comme kan comme kan wax. tudd ko comme ku mel ni Idrissa Seck. ah Idrissa dafa def na lu rafet nag ñëw na ba bi may def passation de service. Ah. waaw waxtaan nañ man. waaye nee naa ko nag jox naa la place bi yaa goog sarax la jëlal. déet mais nee nañ invi da laa invité yabal ay ndaw ñu ñëw nga dàq leen. Ah, déedéet ñu muy invité bu ñuy ñëw sanguwuñu dañoo xasawul xunn. ëpp naa xalaat man ay ay ay ci digg. ba ci au test ba. ëpp naa xalaat bien sûr. ëpp naa xalaat Mimi. léegi daal nee ko. Mimi xanaa place bi ñu joxe dina laa naqari. déedéet du question naqari sax. wala lekk nga foofu daa bari woon. non non non du question lekk gi. Hmm. nekk bu yónneeti ay. daa daa amoon cof bu bari daal. conseil économique et social. moom dégg naa cof bu cof bu am maanaa moo fa am. déedéet du question cof ki mu nii hmm. la ay nit ñuy sama kër ñuy sangu mais ñu ngi fa yónnee sangu wu ñu xasa xunn. waaw ah, waaw même muy sëlmuy seen xam nga lu ngeen war a bàyyi waaw bu ngeen toogee fenn muy neex ngeen ne patt bu ñu leen fa jëlee mu naqari ci yéen ngeen yor seenu làmmiñ di mbel mbel loolu di yow yaa ma ko wax man dama la yóbbante doom ci président bàyyi leen yooyu waaw dama la yóbbante président ma ne la fa naa ko nag dafa namoon bureau chômeur la woon taw na ñaata at yoo xamante ni amul xëy amul ngont danaan déj ci kano rek mel ni bëri deux cent litres waaw baax na yow daal yàq dara la fi indi. non du question yàq dara damay wax samay trois points de suspension. mimi mimi. waaw sénégalais respecté nañ la trop. bëgg la trop man tamit noonu la noonu am fulla président nag raxasit ndox la woon. ci sa am fulla ak sa dama ne. waaw raxasin ndox la woon. actuellement bu demee ba di ma remplacer mën na jël ko toll ak man. waaye koo xam ne dafa gàtt bu tëli këreet. ah di ko jéem a tëkkalanteeg man. alors Mimi dafa dama nguur waaw. oui votre correspondant peut-être c'est pour le moment. waaw après ultérieurement. comme da nga yàq der yow da ngaa bëri wax yóbbante sama yóbbante dëgg ko wax. kenn du ko dégg. waaw